فاغفر لنا ما قدمنا وما أقرنا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله Africell ñoo leen doon may seen programme dog bi di leen ñaanal koor gu yàlla nangu Who is the love one? الرحمن الله هو المنان لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد الزمان the messenger si credit o ɗon tan o africel gulla aɗa yite feñjola e eh, africel ala barka AfriCell Cholera Credit. Now, you can borrow up to $50 with the AfriCell Cholera Credit. If you have been using the same AfriCell number for a period of one year or more, you become eligible to borrow Cholera Credit for every AfriCell loyal year and for no extra cost. To activate your Cholera Credit and know how much credit you can borrow, simply send a blank SMS to 152. You ran out of credit? Worry no more. With the AfriCell Cholera Credit, you can make calls even when you don't have any butut. in in your account. And the next time you recharge your line, you will return your cholera credit with no extra cost. Keep using the same AfriCell number and your cholera credit will grow every year. AfriCell cholera credit only on your AfriCell line. Allah who is Ar-Rahman Allah who is Al-Mannan محمد رسول الله محمد is the messenger Your is our return لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد is the messenger Your is our return لا إله إلا الله محمد رسول الله كنا كأجر mbokk yi ñoo seetaan rek euh, ñu dellu si waat gannaaw bi nga xamee ne yaakaar nañ ne jamono ji euh, ñëpp dog nañ seen koor ndax ñun mi fi nekk sax dog nañ suñu koor euh, mu nekk loo xam ne daanaka fu mu nekk foog naa léegi waxtaan bi war naa gën a mun a neex. ndaxte bu biir yi feesee rek incha allah waaw. waaw ah, parce que or neexut oustaz or neexut. waaw oustaz ba tey dañuy dellu ci li nga xam ne gisoon nañ ko ci lu bañ a yàgg mu doon. jow mm-hmm. surtout bu nekkee ci weeri koor mm-hmm. ndaxte jullit gi mun ngaa def leneen loo xam ne uteeg naa jow mm-hmm. te mu war laa jural ay ngëneel bëggoon rek nga baaxee ñu ci tuuti loo xam ne jullit yi mun nañ ko di ko def waaw balaa ñoo toog di euh, nekk di wax lu la wóorul wax loo xam ne tamit xamoo ci dara xëj na am na yéena euh, yoo xam ne ay ay safaanu comme da ak yu mel noonu yoo xam ne julliti mun nañ koo def mu am njëriñ ci ñoom waaw eh, bismillahi rahmaani rahim eh, comme ni suma jigéen bi eh, moom sax ustaasa la <laughs> ndax laal na fa fu xam ne foofu la foofu la war a lii ndaxte jëw am jot la waaw soo gisee nit ki toog te dañ wax ne sooy joxoon nit ki nga ne diw ñetti baaraam yi dafa dellu si yow kon looloo tax islam bugg ko yuridu أحدكم أن يحكل لحم أخيه أخيه ميتا فكرهتموه aya boobu la alquran wax lii moo tax dafa dafa dafa dafa bañ jëw baaxut waaw su fekkee ne nag am na si lan nga tiye ndax arkaanul islam xamsa waaw ponki islam juróom la weeri koor bii ci la bokk weeri koor bi itam am na lu koy dundal soo gisee ñu ne na inna anzalnahu fi laylatil qadri waaw alquran bu ñu war a jàng fii war nañ ko jàng waxtu bu nekk waaye rawatina nag si biir weeri koor waaw rawatina si biir weer weeru koor même su fekkee ne benn aaya rek nga mun tiijaan benn aaya rek mhm. nga jël si aaya boobu di si répété répété répété di ko jàng jàngaat jàngaat rek loolu yàlla mun a wax ne benn kalima rek soo ko waxee mhm. eh, mun na aaral eh, sa aduna ak ar salaxira loolu muy gën ngay toox ngay wax dëri nit te nit ki waaye damay wax toujours nit ñi si suma jàkk bi lu nga xam ne yàlla moo ko bind ba pare yow toog ko ba pare wax dara si moom lu dut eh, su ko defee koon eh, loolu islam bugg ko mm-hmm. eh, islam bugg ko war nga nag gis weeri koor bi jàng si al alquran su fekkee ne mënuloo jàng alquran itam nag am na tur yu fa xam ne mun nga koo téyee nga di si tudde yàlla waskurullaha kasiran laallakum tuflihun ngeenee tudde yàlla tudd yu nga xam ne lu bëri na ngeen nekk ñu texe si kanam yàlla mm-hmm. tudd yàlla nag bismillahi rahmani rahim mun nga koo def سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر لولو ليب لولي لا وا سوكو دافي ويري كور دال جامو يالا لا لوتا ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها نيني داني فوك ني سي ليلة القدر رك داخ ليلة القدر كين خامون كان لا داني ياكار رك واي كين منو لا واخ ني اكزاكتلي بس بي كون سو خيي سوبا رك تيان نغا سالال نل الحمد لله da bari na ku jóg mu dul wàcce si lalam soo ne rek yàlla bindal na la nag ada afan mu difat su fekkee ne itam wax nga lu safaanoo loolu mu bindal la benn waaw su fekkee ne wax nga laa ilaha illa allah muhammada rasulullah yàlla itam ubbil na la abwaabul eh, bunti ajanna su fekkee ne wax nga subhanallah sellal nga yàlla soo waxee laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñooy jaamu su dul yàlla lii yëpp ay tur yu nga xam ne yàlla sant nañu ñu di ko tudda si biir weeri koor su fekkee ne loolu mënul si tam nga dem eh, seet mbokk yi soo toogee itam àgg nga gis sëy yu bugg a tas nga defar leen nga gis mbokk yu jubóowut nga jubale leen su ko defee lii yëpp si biir weeri koor si waxtu bu nekk nag jullit war na si taxaw di ko def rawatina nag si biir weeri koor bi ndax weer bii yàlla mu ne moom moo koy feyal boppam waaw mu ne lépp lu nga xam ne lii na nag dafay lii waaye weeri koor nag ana alladi azadi bihi man maa koy feyal suma bopp du ma yónnee kenn nag du Muhammad du Jibril du kenn kon weeri koor joomi aadama war na si góorgóorlu ba mu am si ay fullandi yu nga xam ne da koy am waaw tamar benn tamaro sax soo ko yëkkatee nga ne nit am e loolu ngëneel la si biir weeri koor su fekkee ne jamono boobu jotul nag si bëccëg bi a ah, wàññil nelew nga tuddee yàlla wa sabbihu bukratan wa asiran na nga ko tudde suba nga tudde ngoon nga dugul waxtu bu nekk nag waaw eh, xam naa ne nag eh, même séeréer yi sax subhanallah ko mun nga ko ak joolaay subhanallah kay nit ki mun na ko wax walhamdulillah nit mun na ko wax wallahu akbar ndax yàlla mu ne baat yu mu gën a gën a soppa si kaw suuf naanaka loolu la subhanallah